jërë ngeen jëfati ami téléspectateur people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amati mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 waaye nuyu naa kilifa diine kilifa day di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na suñu dolli jàmm euh, tey ma dalal suma benn frère waaye nag mën nañu suñu bitigu frère muy euh, Fallou Colobane nekk jàmbaar nekk gaynde di di di di vraiment di door ay choose nice mu ngi nii Medina après nañ leen jox adresse beeg numéro waaw siyaar guy gi international ñu ngi lay siyaar xam nga di kontaan bu baax ci seen teewaay people 221 du ay caaxaan indicatif ndakaaru la. lii boo ko amul doo dem doo woote kenn du la woo. mais <laughs> loolu <laughs> indicatif la boo ko amul doo woote kenn du la woo waaw. ay caaxaan de. seen lii dafa xeere wow kong la def. am na solo met euh, ma ñëw ci seen Bercy ba parce que euh, fan yee passé demoon ngeen accompagner seen frère mu di Sidiki Diabaté ci Bercy boobu ñu koy ñu koy ñu koy félicité aussi tamit mu jur coow lu bari ah waalee invité bi Sidey invité bi waalee parrain bi Sidey parrain bi yéen ñi nga xam ne nekkoon ngeen fa ndax mën nga ñu wax lan mooy teewaayu waale foofu ak nan la fa ñëwee. waaw waale bi ginnaaw dee ko wàññi nag di def the king of the kilifa gu mag a mag la daanaan bu mag la. Euh, Bercy bi la fa xewoon àddina yëpp gis nañ ko xam nga Bercy mënuñu la fa def invité wala ñu def la fa parrain organisateur lañ la def te comme Wally dépassé na niveau boobu mu détaché ay éléments ci jëmmam ci estafam lu mel ni Metshop international ñaa xarañ loo ñoom Baye ñoom Ndiaga Euro ñoom Gab borom Paris gaynde yu mel noonu lañ jël détaché leen boole nag Sidiki Diabaté parce que loo miin. ak loo miinul du benn nee naa Wally 2016 ba muy am 16 la njëkk a tëgg Bercy yëngal ko ba mu yëng RRA bi taxaw RRB bi taxaw liñ 5 bi terrain yëpp bloqué métro dawul muy taw taw bu métti inondation am teewul Wally dafa duy Bercy bés boobu kan kooku lu mel noonu mënoo ko ci invité mënoo ko ci def parrain li muy mën ñëw mooy mu ñëw accompagner la comme sa frère ñu taxawaay boobu lañ fa taxawee par rapport ak polémique bi fa amoon après ñenn ñi génn naan ah Wally moo forcé ñëw bi extra kàddu yooyu. non loolu nag ci Sidi nga ko déggoon xam naa da nga ragal turu tur bi rek si Sidi lañ déggoon ni moo forcé ñëw bi. non parce que ah. dégg naa beneen kalaam bi comme ku mel ni Boucher mu wax naan ñi dafa <laughs> ma ci sori xam nga Boucher ku ko débouché lay ba lay wër fu mu toll nii Boucher buñ saa bu yewoo nu mu def ba débouché wu rek la bëgg parce que dafa Boucher. waa may wax wax ma leneen li ma a mën a xamal ba xamaloo la ko mooy the king of the pax ba coow la fa amoon yëpp pax bi ci boppam saal bi saalu Bercy ci boppam moo doon riir ngir jëmm jooju ñu koy wax Maria Sine sa Bigué gaynde la du caaxaan dafa métti foofu yëfam la waaw foofu mënoo ko fi invité danga koy jox sa bopp sa sëriñ lay nekk foofu mm. moo tax si Sidiki def loolu nangul ko mu mel ni am ngeen fa relation boo xam ne man vraiment bi ma gisee Sénégal yi daf ma xaw a jaaxal parce que gis naa yéen a daanaka man yéen sax laa jàpp ne yéen ay manager si dégg jabar buy dem fii buy takk affaire bi bopp bi yéen a koy xool lu mu war a def lan la niveau bi. waaw non mais loolu du caaxaan moo tax ma ne la xam nga loo xam maîtriser ko tari ko nga xam ne lii da nga cee fer ijji mokkal ko mën koo jàng ba mu jeex te doo ci gàkk loolu bokk la koo xam ne day làmbatu Sidiki Diabaté wax dëgg neex yàlla mooy première fois en 2023 xalaatal 2016 ba 23 ñaata at la ci diggante bi. Mm-hmm. ñaata at la ci diggante bi kan ban xeetu expérience ban xeetu mentalité ak développement ci côté lépp la waali wala yor nañu waxante dëgg tamit gars yi 16 23 16 23 waaye nañu waxante dëgg. Mm-hmm. loolu yàgg na kan kooku ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax nan ngay toogee. waali noonu la def ak siir ki jabate barki Cheikh Ibra man sama billet Wally moo ko jënd ah 2 millions 300 ma ne ko pour lan la mu ne non Sidiki Diabaté bi il faut nga dem. barki Alxuraanul Karim moo ma woo la 13 ni ma ñëwal ñu dem fekk ma aéroport ma ne ko la 14 damay ñaanal sama baay mënu ma kan la 14 si guddi bul fanaan Ndakaaru ñëwal sama jumeau sama frère moo xewle daggal ma billet daggal billet ñaa xariñ loo ñu dem dal ci hôtel yu xeere ca Clarisse moo waral coolool ngeen doon gis noonu. escorte beeg garde corps yeeg ñëpp ñëw. jël si ñaar jël si ñu ñu def affaire ñun loolu lañu xam teraanga laal business class sangu nee naa ko sa king boo ma yéegal te bëgg maa def gettu bay bàyyi ma ndakaaru moom ko gënal xas naa ba xam business xam ne moo ëpp classe. d'accord caaxaan. man dafa koo bëgg nag. waaw kuy gi looy ree nii. non dama laa bëgg. ah mais namit nag dëgg dafa neex de. dëgg boo koy xeere lu waaw koŋ laa lay tegal man du ma ne mukk xaala Henri Camara wala xaala Ferdinand Coly xaala rasul wala xaala laahu rek. dëgg la waaw am raawal Buxaari bi am sadaqallahul azim. dëgg la waaw wala raawal muslim du wax loo xam ne ay thank you la déedéet. lu xeere laay wax ci the king of the kenn mënu ko dindi. dëgg ci loolu fan yi ñu nemmee ko benn coow xam naa dinaa ñëw parce que waa lii def na fi loo xam ne it man jaaxal na ma montre bi bala maa ñëw ci coowu Ramadan bi montre bi. Med Shop ba pare ah Idi ba muy dem Nicaragua def na 45 jours yegg jeex tàkk. médecin bi ngeen def fa 3 jours. waaw xam nga the xam nga tur bi day nuru day wuy borom boo nee the king of the of the land of the land foofu laa ko bloqué dama koy dawal un an doog leen wax of the land waaw li lim fi mu mën mënee moo bari 72 heures boo ko defee Amérique Amérique balaa ngaa yegg rek benn fan bi dem na. kan diggante 48 heures ngay wax te du mat 48 heures. jour ba ca topp da ngay takk say bagage pour ñibbisi kan Amérique benn fan lañ fa def kooku the king of the mm-hmm. waa la ñu yóbboon A ak B ak C C bi la di ko xam mooy gars yi ñu bëgg C. comprendre nga. waaw bi affaire personnelle la B bi business. C bi nag mooy montre bi dafa waroon génn ci Amérique di jar xaalis gu bare bare du xaalisu xale. montre waaw. ñu dem jënd ko. 780 et quelques mille euros. boo ko xëytoo si xaalisu Sénégal lay bari rek waaye foofu kaana yi bariwul ci ñoom. bariwul ci ñoom. bari na non mais loolu boo ko convertir en CFA lay jox cinq cent et quelques millions. mais ñi cinq cent et quelques millions dañ koy lekk ci juróom-ñaari fan. du benn niveau yi ñoo dul benn. moo tax coow montre bi def coow biri bi nangam sangam yaa ma gën a xam kooku sa king fa fekk waaye yow ma nga ca leneen la mu takkandool ak montre yi suñu ko limoon gars yi ne montage la. mais pourquoi Wally bëgg bëgg matériel takku fii takku lu oto bu cher lan la style bi la wala lan la c'est quoi. non teraanga àddina ziya. waaw olof yi ñoo naan teraanga àddina bët tubaab bi naan ziya loolu kese la du leneen nit ki bu la yàlla defalee da nga koy sant maa ngi sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin ci nangam ak sangam. Mhm. waaye li yàlla gën a bañ mooy defal la nga génn di jàmbat naan yoruma dara tey rek dafa dëgg rek dafa wow nañ bàyyi loolu doomu aadama yi. ñi fi yàlla jox xéwal ñu génn jël karapit lamb seen poos la yàlla joxee nga jël taxi jëlal taxi bu la yàlla joxee xéewal nga jënd oto jëndal dawal génn sa conc bàyyi nañ bàyyi dof-dof lu bi du ay jaaxaan yàlla bëggul loolu. am na solo euh, ñu ñu gis fan yi coow loo xam ne am na biir Ramadan euh, du ma ni biir Ramadan sax parce que li tax ma ni biir Ramadan tamit dégg naa ci ku mel ni Baye Sall wax moo tax ma cité turu Ramadan euh, ñu ni Ramadan léegi daanaka dafa xaw a changé dafa bëri coow staff bi mu yokkoo ñeneen ñëw vraiment ci la coow li bëri waali chaque fois yaa ngi koy dégg ci coow dem ba koy ñoo xamante ni daaw wax waali di tudd c'est quoi le non mais c'est quoi problème boobu laa la bëggoon laaj man. non parce que nee nañ Wally de le fait que tey ah, ku ci mel ni Omaro ñëw dafa dañu gis leneen ay coow fii. non xaar xam nga woon wax naa la fii sama benn interview dama xawul maîtriser football nag lu bari mais li ma la mën a xamal ba xamal la ko transfert yi yaa ngi koy dégg Sadio sax dégg naa temps yi xaw ma Paris Saint-Germain moo ko bëgg. du dëgg Paris Saint-Germain du club bu mag du orchestre bu nganda a duutante dóor bal mu dal ci baar bi passe décisif jolol ah mais loolu mooy di am ay éléments yoo xam ne dañuy jugee ci ci ci ci box bu ndaw bi bëgg dem ci bu mag bi moo ku yor ku mag ñoo yem di bëgg place dañoo xam ne dëgg ñooñu ay transfert lañ def fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi jóge nga fii doon rêve dem fële wala jóge nga fii liggéey ba dem fële da ngay dem mhm. mettiwul fii yaa rien gars yi ñooy nekk ci bande de rek di yëngal mais ñun suñu biir amuñ benn problème. mais dañu gis ni bi mu bi gars yi ñëwee ba tey vraiment léegi dañu gis ay coow yoo xamante ne daawuñ ko nemmeeku ci wàll dem ba ay xam nga ay audio di fuité comme. ah ay non cooy la ngeen gis quoi yéen kan job bu nice beeg yi fi jotoon am ak yenn détails yooyu yëpp bàyyi leen ci xel defu leen ci ah, interview waxtaanu leen ci. na job bi nice na ah, rek yi waxtaan ci bi fi gars yi def ba ñëwee. waaw yaa ngi dégg mais foog mu ñaaw rek pour ngeen départ jël non mais <laughs> ah, lay wax rek de barki Cheikh Ibra du caaxaan. la jool yi c'est quoi lan la. non dëggaloo la xanaa waali ay bagaasam moo ànd ak bruit xanoo sin say jaga jisun mu jëlaax ak Moussa ha dugaar ak Jamil wax naa la rawaan yi mu àndal ñoo bari mm-hmm. nit ku ànd ak presque 32 rawaan du ay caaxaan foog chaque jour rawaan bu nekk ak li muy bëgg mm-hmm. waaw rawaan waal yi danoo bari ku ne ak li ngay imposé lundi kii lii lay bëgg mardi kee bëgg la le dañoo ko dëgg mm-hmm. yow mës ngaa yeew rek dëkk bi selaw da fekk boobu waali newul Sénégal barki Cheikh Ibra yéen seen bopp xam ngeen ne bu wàllu jëpp ndakaaru da xam ne bërëm dëkk bi ñëw na rawaan la de. kon par ak ñu doon wax parce que jël naa ko ci mel ni Pawlish Mbaye euh, mu ni ma Wally dañ ko liggéey léegi ah, ñi muy àndal ñoo ko liggéey moo tax Wally sax mënatul toog Sénégal benn fan léegi non non Pawlish wax naa ko ni ko nañ dimbali ci liggéey bi mu tojal ñu ko comme moom rawaan la boo ko xoolee jaxran da xam ne Pawlish am na lu ba léegi na liggéey bi moo waral ci tool yi ni kalmu nii jërëjëfati Pawlish noonu la booy jege Wally am na élément bu ne am na ay jinne am na ay ay ay ay ay barami xam-xam ah, am na ay ndongo daara ah, am na lu ne ci àddina ku ci nekk mission bu ñëwee bërët ci waale yow bu kenn buuxante ka ko war a régler dana jóg dem régler ko. kan nice. mais ndax jàppoo ne actuellement ni euh, position yenn gars comme ku ci mel ni Omaro ak Baye Zall dafa xaw a dafa a déranger ñenn ñi ba tax fan yi coow li nga xam ne jóge na ci Adamo dem ba ay audio Baye Zall di ci fuité Baye Zall di wax di di di saaga ma koy nuy sama frère nag mu nekk ku baax aussi tamit yàgg jàpp ci suñu liggéey depuis ma koy xam démb ba tey ndax jàpp nga ni tamit ñëw gars yooyu noonu dafa am benn jalousie boo xam ne andi na ko non non man du ma la ndax gars yi xalal bu ñu voyagé ñun ñëpp ñooy nekk ci benn box ñooy añandoo ñooy reerandoo ñooy toogandoo di waxtaan mhm. ku ci nekk ñun Wally jëm ci kanam moo ñu intéressé moom loolu ñun loolu la ñuy dox xam fu may waxee kan peut-être seytaane dat boobu passé léegi nii ñu koy wax le vingt cinq wala le vingt six euh, novembre dafa waroon dugg si si biir groupe bi seytaane comme ni mu jógee si ñun dem fu muy dem noonu escale la rek dafa doon voyager escale fi loolu laa ko jàppee dem na nee na furus essaay nga ca leneen dat yi danoo bari mënul ànd ak tiisante dat yi sa king wax naa leen mooy papa Noël mooy père Noël bu décembre ñëwee lépp lay téye ci loxam démb day compter di compter di compter ba xamatul yan date la public bi di ko jàppale naan ko waali mu ne naam mu ne ko la le 25 yaa ngi bërëb nangam le 21 yaa ngi bërëb nangam le 22 nangam 23 24 27 28 29 30 31 waali xulli ay bëtam ñu ne ko yaay papa Noël décembre sa yëf la fo dañu waxoon dëgg yooyu mënoo ko booleeg am date yi toll noonu naan da ngay dugg ci yenn affaires yi seytaane moo escaloon foofu dem na mais mais coow li aussi tamit ndax jàpp nga ni tey bu ñu nee Wally ak encadrement ak staff ñu dem ba ay audio di fuité bañ dem bañ ci tudd ëmat ba am ko dem bay joxe ay vocal nii ñu ngi naan moom la wala du moom naan biir Ramadan laa bokk lii lépp boo xoolee ëmat yi moo nekk ci ginnaaw parce que ñaar ñee muy Amadou ak Baye Sall dañ ko xaw a waaye posé nga question bi 689 fois ma ne la seytaane doon voyager escale bi ruube dëkk bi jox joxal def ay action daw génnaat seytaane bu demee da nga koy bàyyi mu dem. ñun ñu continuer ci projet bi li ci kanam barki Cheikh Ibra moo dàq bu ñu defaat émission bu Wally yëngalee 21 yëngal 22 bi 23 24 gam bi yaa may woo téléphone ni ma met kaa ñu def émission ndax sa waa ji rap la wala jinne la ma ne ko dafa am ñu mu àndal moo dàq. billaahi. coowal caat sekk li nga am benn kàddu boo ko waxoon keroog ma déglu caat mu ni émission yi gars yi def yëpp tontu ma bu met shop moom mu ci gën a neex coowal caat sekk li. ah <laughs> seetaan naa loolu xam nga caat mooy li ma wax rek xol bu rafet la yor. xam nga man wàllu Colobane mii borom place bi xam na li may wax ah bu caat dugg see si seen si waali ba xaañ yuux damay ànd ak moom ci action ndax li muy li muy doxal daf ma neex yaa ngi dégg mais la ma fa wax du du lenn lu dul lu mu def neex na baayam rek moom lépp lu mu def neex na baayam te baayam xam naa ko man baayam xam naa ko li ne ci biir xolam bii kenn mënu koo xam ku dul moom ci boppam waaw dégg naa ci ay wax ñu naan ndeysaan Papa Thione daan na wax ni euh, euh, yaa ko waale ki ko ne waali li ma la wax du caaxaan nag daanaan bu mag a mag la waaw leer na ma leeru yàlla loolu sax du ma ko wax ndax xam naa ne mën na ko xam naa ne da koy def caat ak waali ku yebu seetaan nga xam ku yeb seetaan ku bëgg xam jikko waali dëgg xol ba da ngay da ko xool ko ci caat ci diggante mook caat incha allah. buñ tasewaatee. nga xam ne kii rab la. du nit simple. par rapport ak coow li am biir Ramadan yëpp démb nga yéeg ci seen bi yëkkati plus de vingt millions di ko baatawaale mu mel ni yow coow li da nga ñëw focus ni lan nekk ci leneen quoi comme si que yow affaire bi yëgaloo ko affaire bi ampleur bi mu am ci dëkk bi dem nga ñëw yéeg vingt yéeg ak vingt millions. <laughs> non waaw mais moom laa la wax rek xam nga ñun dañuy joob ñun joob bu ñuy joob amul tricher ndax vingt millions kenn du ne am ma àll nga dem te ñëw. 10 millions kenn du la ne am ma àll nga dem te ñëw surtout ak microgras bi xew nii kenn du yóbbanteen tul kenn léegi ñëpp ay demal seen bopp da ngay def banque fekk fa paa yu màgget ñuy fersel seen bopp ndax lan booy dañuy àbb sa xaalis dem la ni la maa ngi di New York City naa la fay <laughs> looloo fi xew yaa ngi dégg kan ñun am na loo xam ne bu ñu ko defee yéene lañ ko defee ak xol sa waay gu mag la mérité na lu ëpp loolu ci àddina nee naa la waali loo ko defal Dakar boo daan àndee voyage mu fay la ba wis la hôtel bi mu lay jëlal rek boo fayul téeméeri junni par jour doo fa nelaw hôtel bu xeere équipe nationale bu France fi muy dal fa la lay wàcce mm-hmm. gars yi ñooy wax ay Clarisse ay Saa toolu maam Cheikh Fall ñun ñoo ko yàq ñun ñoo perte ñun ñoo ko perteloo valeur am man ak ñaaxariñ waaw mm-hmm. ah, dañ fay yendu tey naan fa café ngoon ñu def fa fa yooyu joué fa série taa def lu ñu neex génnaat mais hôtel bu mag bu xeere bi c'est foofu la the of the di dal gaynde gu mag a mag la àll la foofu du ay caxaan bu la defelee loolu jëndal la billet bu 2 millions 300 laal la business class nga sangu yëkkati argent de poste 2000 pounds wala 2000 euros jox la la ko defee benn fan ñaar ñett boo ko mayee 20 millions du feeñ barke Cheikh Ibra gaynde la de yooyu yëpp nag du ay ay dégg naa ñu naan ay fay coow ay déedéet man man coow li taaluma ko ba koy fay mm-hmm. ñun lu ñu def day naturel liñ def bu fekkee moo fay coow li kan dinaa ko defaat mu gën koo fay ndax ñun taluñu ay coow. ndax jotul jamono ji Ramadane ñu toog waxtaanaat par rapport ak Ramadane bi nga xamoon bu njëkkoon ci liggéey. ci manko ah da nga bëgg bàyyi way bi léegi toog di def ay conférence quoi. non non pas loolu sax. ah lu xam nga léegi bu ñu demee ba tey. balan ba tey ñu gis ni genre comme tey benn aadamoo question bu ma neex la maa ngi koy wax benn aadamoo taxaw tey ni moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy régler mooy régler Ramadane ay kilifay Ramadane di ko woo di ko ñaan naan ko bàyyil mu sedd ndax tamit. tey Ramdaan mérite na loolu ak suñu toll. non non mais xam nga Adamo man li tax Adamo man mënu ma ko tegal lu xeere Adamo xam na bu baax a baax sama waay la ñooy nekk Paris moo tax ma ne la ñëpp ñooy bokk fu ñuy yenn bu demee Paris. Mm-hmm. man si gaaw a wax ndax xam naa fi mu toll si waal yi. la yaa may dëgg. Mm-hmm. Adamo coole moo bëri nii waaye Adamo waalee ko gënal lu am ci àddina. de léegi nag Adamo xadar bi muy demee vitesse bi moo bari. Mm-hmm. mais bu demee daw daw ba xam ne li muy daw bari na day geesu xool ana waali nga gis mu fereenel boppam. waaw xam ne mu ngi xam nga mu wàccaat. Mhm. mais loolu xolam la ak xërëm peut-être mooy li ma wax ci Pawlish rek mais ñun ñëpp ñoo far. Mhm. erreur de communication day am mais dañuy reconnaître rek gars yi arrière xam nga defar mu nice. Mhm. xam nga du question de moom. mooy Adamo fépp lay wax moom bu déggee ñaari muus yi xeex sax mu ne muus bu ñuul bi moo tooñ muus bu weex bi waaw dossier yi maa ko yor képp kuy nooyi daal maa yor sa dossier namul dara Adamo moo xeere ci boppam mhm. yaa may dégg bu xoolal Adamo tey si kanam léegi boo ko doon seetaanaat léegi ma ngi ca beneen affaire waaw kenn du de <laughs> moom xaw ma ban ministre lañ ko fal de régler régler régularisation des problèmes la far xam nga ah, ah. yaa ngi dégg. Mhm. mais ñun ñëpp rek nañ nañ nañu xam ne daal li ñu intéressé mooy the king of the mu nekk ci jàmm. d'accord ak salaam. am na solo fan yii seen frère ngeen nekkoon woon Italie aussi tamit xam nga Paris muy Mara gis gis na li ko dal fan yii message boo xam ne di nga ko ci lancé aussi. waaw Mara waaw maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax a baax xam nga di ko ne bu dee xaalis moo koy faj bu neexee yàlla dina wér. Mhm. bu dee yàlla nag moo koy faj tamit ñu ngi ñaan yàlla mu wéral ko. Mhm. yaa ngi dégg yi ma ciy dégg noonu yëpp gëwuma ko amul ay ñu naan nañ ko sànni kot. waaw yow sànni kot yow kan ma yow ku dàq yow sànni moom ba ñu koy ko xanaa kooku moom moom moom moom moom moom buy dem Amérique du jël xanaa du jël avion day sànni boppam. Hmm, jaaxal na dama ne dañ bàyyi fooykaay yi ay dañ ma sànni kot mooy la da koy téye si loo xam sànni ko wala la man ni ñu koy sànnee laa comprendre lul <laughs> fii ñun jàng nañ baqara ba mu na jëndati wanaasi dañ koy tari jàng nañ fiq jàng naxu jàng tawxiid jàng arxuraan hmm. nekkoon nonga daara xam li xew ci addina yaa ngi dégg hmm. ñun dun ay ngaaka na rafet na ñëpp wóoluwaat yàlla bàyyi caaxaan bi. Mhm. ay dañ maa sànni kort yooyu ngay dégg ni day dem ba dugg sa biir yuur bi fees fa dellu toog am fa chambre salon. Mhm. fu ko fa amee nag lu ñëw nga jiiñ ko affaire mystique. Mhm. mystique ku ko mën tëgg na jiitu sa bopp nga defal sa bopp nga am alal defal sa bopp ngay naaw defal sa bopp nga mën lu ne ci ëddina boo nee gato gato ñëw nga ne ceebu jën mu ñëw. doo ci nekk di sonn doo joxe dépense. yaa ngi dégg boo bëggee naan nga ne damaa mar nga mar nga nga boo nee damaa mar rek sa biir fees dama xiif nga xalaat xiif wér nga am sa sa biir fees képp ku ko mënul rek arriéral ba caaca njaay nga taxaw fa gëw ma ay korte ak ay liggéey ak ay xeetu foykaay yooyu hmm. gëm naa ne nag mus nañoo jàpp yonent bi ci mystique waaye ban xeet la lan la ban genre mystique la est-ce que mbokk nag suñu yii hmm. yaa may dégg wax bi day kawe nag wax bu xeere laay wax hmm. waaw yàlla nag bu nangoo bu fekkee ne dafa bëgg lii nga bëgg def nii mu nangu ànd ceeg yow waa da koy def ngir natt ngir natt jaamam wala yu mel noonu waaye nga a yow tey man waaye diw moo ma def nii diw moo ma def naa diw moo ma def na le mhm. diw am yaay nga am yaay diw am baay nga am baay boo bootew ñu ko soleil bootew ñu la soleil mais c'est quoi le problème mhm. jëlal yëpp teg ci yàlla moo dogal sama fii neew yàlla moo dogal ma jékki-jékki rek tàggali ko sama sago temps yi mhm. yàlla moo dogal ma yoratuma dara yàlla moo dogal moo dogal moo dogal moo dogal yàlla du nit ah tamit na solo moom laa daraloon fii vraiment mu war nekk ci ay itam ku ne xam na ni Wally day joué après Vogue euh, vraiment jot amul euh, te gis nga li muy wax rek de sens bi. del wax the king of the. the waaw the ah, king of yow wax the king of <laughs> the. parce que Wally boo koy wax lu bari waa Mali yi supporter euh, <laughs> waa annexe lo waa kii waa découverte may bañ ñu jàppaat turu jàmbur xam nga Wally yàlla double V la ko bindee. double V la bindee Wally. Oh, foofu M la waa Mali M bi la ñu doon wax. waxuñu waa waxuñu double V léegi nag déedéet de. Buuse <laughs> mi buuse moo moo moo moo fat turuwaale bi. te tur bi yàlla da ko débousé. waaw xam nga da ko débousé nii. jaaxaanal ko mu def waali moom bu ko taxawal fatt ko def ko Mali <laughs> <laughs> waa lii méttiwul. <laughs> ma koy jaajëfal ah Providence son frère di wax gars gis nga vraiment ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. ñoo far lii soo gis la wallaahi lazim gars yi boo leen fekkee daanaka ñooy waxtaan gis nga keroog Sidi bi mu génnee ci Bercy bi gis nañ seen benn sinap ngeen ñi sinap noonu di kaf di foo parrain. waaw donc nante la nag ak xam xam kan mooy parrain ak waaw donc àdduna noonu la. nante la moom invité bi moo doon laajte parrain bi. <laughs> maa moo tax ba mu ne bëreet wàcc Amérique ma ne ku doon laajte faali ngoye ngi nii. <laughs> muy noonu ah di leen jaajëfal met sa mot de la fin ci émission bi. waaye di siyaar ñëpp yu ñëw di siyaar kaanu yu mag a mag yi ah di siyaar ñoom Fall Kolobaan borom Faramaren shop Iliman Guèye borom eh, Washington DC ñaaxarañ loo international. Mm-hmm. ah madame Aydara Karara ah. surtout Sidina Mohamed boobu nga xam ne ma ne la. ñëpp sant yi lépp lépp lépp leer na boo reeree ba pare teey gingembre chaud fu ma toog dama koy wax Salimata Gueye xam na li may wax Gueye Ndioro mm-hmm. le 31 nañ ko waajal bu ñu yéexee ma lekk place yi taabal yi bu ñu yéexee dinaa ko lekk le 31 waaw numéro 1 bi yàlla dogal na comme waali xoolee naa ko nii xoolee ko nii xoolee ko ci suuf bàyyi sal ni boo jëlee place bi si kanam sooy xool waali da ngay est doo jël deuxième ma ne ko téen bee ma manqué woon xoolee naa <laughs> mais Gambie tamit People 221 day ñëw Gambie yéen boo leen ñëwul da ngeen xaru yéen yéen moom indicatif bi Sénégal bu ñuy dem da ngeen ko war a yóbbaale fépp fu ñuy dem ci àddina waaw 221 dafa war a dem warul toog Ndakaaru mm-hmm. du ay caaxaan di gërëm ñu naw xam nga madame Jomboxo du ay caaxaan ah, saala di gërëm ah, eh, ñoom bébé fa di gërëm ñëpp ah Fallou Kolobaan di daw na yaram Fallou Galas borom oto yi xam nga di gërëm suma yaay nag waaw Safiyatu si baram way wërëy wi mm. kenn du ko rey moom <laughs> waaw ñoom asu Babacar Kaano yu mag maa ngi kontaan daan ci xam nga ci seen people 221 daal mm. waaw mooy loolu am na solo ñoo far di leen jox dig daje suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf